Pero asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki téléspectateurs yi ñoo ngi leen di nuyuwaat di leen ziyaara fii ci euh, Touba Mbacké euh, sant leen gërëm leen ci teewal bi nga xamante ni saa su ne yéen a koy ànd ak ñun ci xibaar yi nga xam ne moo fi bàyyikoo ci weeru koor gi te jii nag xibaar yi dañ koy consacré exclusivement laylatul xadr gi nga xam ne célébré nañ ko fii ci euh, Touba Mbacké ci jeudi bi dëppoo ko 30 mai 2019 doonook ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru koor gi di guddi ñaar fan ak juróom ci ni nga xam ne noonu la ko Serigne Touba tënkee ci calendrier boobu nga xam ne moom la def jagleel ko laylatul xadr loole moom moo tax xalifa général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké Bachir célébré na guddi googu ànd kooku mbooleem taalibe yi fii ci Touba Mbacké laataay loolu sax euh, am na kilifa yoo xam ne teew nañ fii ci Touba Mbacké ànd ak Serigne Mountakha Mbacké Bachir euh, guddig leelul xadr googu bokk na ci amet xalifa Niass mu nekk koo xam ne wëlala sëñ bi la ginnaaw boo xam ne ñëw na ziyaare ko am na kàddu yoo xam ne yëkkati na ko ci kanamu Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké Bachir ñu ànd teel yooyu kàddu. dafa yàgg wax na ni yàgg na ba ci maam Maara Mbàkke ak sunu maam mu ñëw ba ci sëñ bu mag bi jàll ci diggante suñu Basiiru ak suma wàjjur góor yàlla def nag suñ Muntaxaa ci mbaaxam jëmmi jamono mu nekk Kawlax doon ndox tànk yi sëñ Basiiru daan ndox ci kër yi mu ko daan dox mu dox ko fekk ma fa ci kër gi ma gis ko rek xam ne kii la kii la du keneen ma ba léegi nag ci mbaaxam mu di may baaxee ay ngan di jóg fii di ma fekk Kaolack di ñëw fii jógee fii di ma fekk Dakar euh, ku nekk xam na ni bu doon euh, alal mooy tax nit am sëñ mu taxaa dox ba ci yow kon kenn du ci jot waaye ku ne xam na ni moom faalewul alal ak moom loolu la ko sëñ bi bàyyi tànk sëñ ba rek suba ngoon bu dégg ko ci wax naa léegi ñu ko xawul amuñu ne moom añ cere ju ñuy siimu ñu def ci tuuti ndox bu ñu xorom mooy añam te mi ngi joxe wataboor ku ne ak ganaar ak leneen ak leneen ku nag buñ yàlla mayee ah mu baaxee ñu kanamam gu leer googu ak macha allah di muuñ jëmale ko ci yow loolu ci bo jëmmam loolu ci boppam ñoomu àjjana la kon nag loolu tax ñu ñëw bokk ak moom njàngum xasaayit mi nga xam ne xasaayit yi xasaayit li tekki mooy jëmu ba mu jëm nag ka ko tax a xasdu mooy yonente yàlla moom sallallahu alayhi waxi xaadim la ju jëm ci Rasuul te kon xaadama ko Rasuul kenn lañ benn lañ kon wax jooju wax ju kawe yoo xam ne ki koy jàng ak ki koy déglu te teewlu ko mënu caa jëlee lu mooy njëriñ loo xam ne foog na njortam sëñ Muntaxa yal na yàlla bu dëw lool mboolem ku sant Mbàkke ku mësa a ci kaw suuf yàlla na ci dund loo xam ne kenn mës ku ci dund boole ko ak ak wér E, di sant yàlla di ñaan at mu ne yàlla may ñu ñu ñëw feddali kóllëre yi nga xam ne yàlla ak yonent bi ñoo ko mu nekkoon kàddu yi nga xam ne Ahmed xalifa Niass yëkkati na ko ci kanamu mun taxa Mbacké Bachir ci euh, bés bi nga xam ne ci lañ doon euh, màggal Laylatul Qadr fii ci Touba Mbacké ba léegi ci Laylatul Qadr googu sax euh, la ñuy des ndax ki nga xam ne moom moo di soxna may Maymunatu Mbacké bintu Cheikhul Khadim ku tudd leelul xadr fii ci Touba tudd ko ba tax nañ njabootam gi taxawal nañ leelul xadr gi ci njiitalul ki nga xam ne tey bii moo fi xalifaam di sëriñ Modou Mahfous ànd kook mbooleem njaboot gi ak coordonnateur magal gi di sëriñ Abdou Bali Mbacke moom nag bëri na kilifa yoo xam ne ñëw nañ saafonteeg moom ci kër soxna Bali gi nga xam ne moo nekk fii ci Touba mu kilifay euh, diine kilifay aada kilifay euh, l'islam ñoom ñëpp ñu ñëw ngir saafonteeg moom ci bés bi nga xam ne moo di leelatul xadr gi ci ni nga xam ne noonu la ko waajuróom wu sell wa daan màggale fii ci Touba Mbacké di soxna Bali ñu koy ñaanalaat yàlla yokk ay leem taas ci barkeem waaye ci cérémonie officielle bi nga xam ne amal nañ ko ci teewaayu kilifa yu takkoo takku moom Serigne Abdou Bali am na yoo xam ne yëkkati na ko fa ci teewaayu kilifa yi ñu ànd teewlu ko. la mu waaye seen kër yi ren jii day fay nañ ko ko ci anam yéeme ndax bokk yi kenn kenn kenn desu ñëpp jàpp bis jàppee ko seen yëf ba suñu borom dimbali nu ba mu mel ni mu ci fii ak ci. léegi nekk Touba Mosquée te nekkal la ko mbokk yooyu nag kii di sëriñ Sidi Abdou Lahad moo ci jiitu moo tax sëñ laaj benn yóbbante ci moom ndax moom lay amuñu fayal foog naa fa mu jaar ak sëriñ bi li nga xamee ne soxna Bali wàcc na liggéey ak ci la ko ci biir tawat ja bi ma jógee Ndakaaru ñëw ñor bi jël ne ko day dañu bëgg nga ñaanal ko dana ma déré si àll bi ma ñaan dama ñëw ba ko dina jekk ak fajar rek ñu woo ñu daan si ñu ci hôpital bi mu ànd ñu lépp ba yëf ya mu taxaw taxawaay ma mat sëkk moo tax suñu boo demee nañu cantal cant bu am bii mën naa ne li mu ci def defar na bis bi ci fànn yëpp ñu ngi fekk li sunu taalibe sax laa wax ko la rek ndax mooy jur la di kilifa ci sëriñ bi ba léegi mbokk yi ci xibaar yi fii ci Touba Mbacké ki nga xam ne moo di Serigne Moustapha Mbacké moom Serigne Abdoul Khadr ni nga xam ne noonu la amalee naafile yi ci këram nga xam ne kaamilu alxuraan lay naafila weeru koor wu nekk kaamil boobu nag mat na euh, mu nekk loo xamante nii ginnaaw bi mu am ay ñaan yu am solo yoo xam ne amal nañ ko waaye yëkkati ay kàddu ngir soññaat ñi nga xam ne ñoo di taalibe yi waaye ñaaxaat leen ci li nga xamante nii moom moo jëm ci guddi laylatul xadr ñaan teewlu kàddu yi sëriñ Moustapha Mbacke moom sëriñ Abdul Xadr. lislaam daa wax rek weer bu duggee yaa baaxiyal xayri aqbil lañ daa yaa baaxiyal charri aqsir ki sàkk lu baax farlul ki ki ki ki daa wut bon ki daa jiim lu bon gàttañlul hmm. weeru profito la weeru barke la weeru yërmande la weeru ngëneel la weeru infaax la mooy mooy mooy joxe sa alal yàlla dafa fonk lool infaax moo tax murid yi ni ñuy def ndimbalul yàlla la yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu fukki fan yi mujj yi masaa ñëw da daaya gën a takkaat ndiggam te moom musta dañ di ki gën a farlu ci nit ñi waaye farlu ga da koy yokk sadda mi saraho wa ay xasa ahlahu day yeewaa këram ñi kenn bañatee na la ko ba fukki fan yi jeex bëgg ñuy dundal guddi gi ngir bëgg tawféexi guddi gi nga xam ne moom la ci yàlla def te ku dajeeg moom sa mel na ne jaam nga juróom-ñett fukki at ak ñeent loolu sëñ bi dafa rëy junniy weer laylatul xadari xayru min alfi sahrin moo ko gën sax la moo gën junniy weer waaw te te malaaka yi dañ ci wàcc ànd ak kawkab bu mag ma mawkib bu mag mm-hmm. bu mag lay àndal moom moom jibril inna naka noon ansalnaahu wàcce nañ alxuraan fii laylatil xadri ci guddig laylatul xadr wa ma adraak ana loola xamal maa laylatul xadr luy guddig laylatul xadr laylatul yàlla bu bëggee réyal mbir day wax wa ma adraaka borom wax waxee ma sax ndax xam nga dëgg-dëgg luy laylatul xadr mooy loola ci wolof yenent bi di déglu ko mu ne ko laylatul xadr yi laylatul xadr de xayrun moo gën min alfi sahrin ci junniy weer daal di koy firil ne ko tanazzalu dana wàcc almalaaikatu malaaka yi war ruuxu ak jibril fiihaa ci guddi gi bi isni rabbihim ci ndigalu seen borom min kulli amrin ànd ak mépp mbir dara du des eh, dara du des <laughs> salaamun hiya jàmm ji nga xam ne moom la ñëpp bëgg jàmm jooju la ñu indaale xattaa matla'il fajri ba jat ba fajar di fekk mbokk yi xalif général des mourides Serigne Mountakha Mbacké Bassir ni mu ko amle daaw noonu la ko amale waat ren fii nii ci résidence Xaadimu Rasuul amal fi li nga xam ne moom moo di guddik leelatu xadr gi ànd kook mbooleem taalibe yi ci yi nga xam ne moom ngeen gis ni ak daara historique ci njàng am solo mi nga xam ne amal nañ ko ginnaaw bi ñu julleegee nag mboorom kuréel yi nga xam ne ñoom lañ tànnoon ñu amal njàng mi ci teewaayu mbooloo mu takkoo takk nga xam ne bàyyeekoo nañ fu ne ci biir réew mi ngir ñëw mën a teewee li nga xam ne moo di leelatu xadr gi ànd kook sëriñ bi waaye it ci mbooleem biir dëkk bi ci biir jumaa ji ak fépp foo xamante ni rek mbooloo ñu ngi fay dajee màggal nañ fa li nga xam ne moom moo di leelul xadr gi fii ci Touba mu nekk guddi goo xamante ni ni ko yàlla suñu borom waxee ci alxuraan ni moo gën junni weer tax na ba kenn ku ci nekk def na kéemtalaay kàttan sàkku ci ngëneel li nga xam ne moo am ci guddi gi ginnaaw nag euh, bi ñu demee ba fajar ñu ñaan sëriñ bi ànd naag mbooloo mi daal di dem ci jumaa ji ngir julli ji fajar gi ànd ak mbooloo mu takk lool ci image xam ne moom ngeen gis nii sëriñ bi nag bi mu demee ginnaaw bu mu jullee euh, fajar am na kàddu yu am solo yoo xam ne yëkkati na ko fa daal di soññaan yi nga xam ne ñoo di taalibe yi waaye fësal ak mbégteem mu jëm ci mbooleem ñi nga xamante ni ñoo ak moom di ko jàppale ci liggéeyu Sëriñ Tuubaa bi waaye àndoon ak moom li nga xam ne moom moo di guddi gi mbokk yi lii lañ leen indiloon tey jii ci xibaar yi nga xam ne moom lañu jagleel euh, weeru koor gi fii ci Touba Mbacké tey jii ñu jagleeloon ko guddi gi leelul xaadir nga xam ne moom lañu amal fii nii ci résidence Khadim Rasoul ak ci mbooleem gox yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi sant leen gërëm leen ci teewlu gi ñu tàggoog yéen ak njàng mi nga xamante ni am na fii ci résidence Xaadimu Rasuul ci guddik leelatul xadir gi di ñaan yàlla suñu borom lépp loo xam ne ñaan nañ ko fi mu nangul ñu ko te defal ñu tawfiix ñaan laat Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké mu yàgg fi loolu tànd ak wér wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërë ngeen jëf alhamdulillahi almujib bi qadar ma sana fala